man bëgguma góor jigéen du ma wax ak góor jigéen ah dara ma may xaalis nag ma jël man xaalis moom ku ma ko may ma jël waaye waaye man bëgguma góor jigéen du ma wax ak góor jigéen toppatoo ma góor jigéen man góor jigéen rek su ko li ci yàlla wax rek rek rek rek moo ci ne te moom laay doxal